salaamaaleykum mbokku déglukatu réew mi fm dal leen a jàmm seen émission cent filtre sans filtre jotaay ndaw ñi la fii ci réew mi fm lay am euh, mercredi bu jot 15 jàpp 16 heures ñu tàmm di fi invité ay ndaw ñuy fas yéene di waxtaan li nga xam ne ñoom euh, ci la ñuy yëngu waaye tey nag euh, émission bi dañ ci ànd ak ay partenaires espagnols Afrimat am projet boo xam ne projet d'échange la d'entreprise de technologie d'entrepreneur et d'innovateur ci domaine yi nga xam ne nag day am impact impact économique diggante les îles Canaries ak l'Afrique de l'Ouest ñu ngi ko financé à hauteur de 85 pour cent par le FEDER au titre du programme opérationnel de coopération territoriale Interreg ñoom nag li leen tax a jóg moo di promouvoir li nga xam ne moo di l'entrepreneuriat des entreprises waaye itam le leadership et l'autonomisation des femmes dañuy réaliser ay actions yu bëri nga xam ne luñ ci jublu moo di sensibiliser waaye itam motiver former renforcer li di participation jigéen ñi Euh, ci euh, initiative économique ak entrepreneuriat ndax ñoom jàpp nañ ni euh, jigéen ñi mën nañ impacter de façon positive li nga xam ne Euh, moo di euh, euh, ñenn ñi donc tey dinañu dalal Lama Ba vice-présidente réseau national des femmes pour le développement dina intervenir dinañ ko woo ci kanam soxna Rokhaya Sy moom moo fi toog bokk na ci club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal jeune entrepreneur la di yëngu ci wàllum agro agroalimentaire ak habillement Euh, donc indi na sax ay produits euh, di ngeen ko gis yéen ñuy suivre euh, suñu page Facebook di ngeen dégg itam Rokhaya Sy moom tamit entrepreneur la moom di yëngu ci wàllum couture ak coiffure yore itam école de formation Mor Fall yow it yaa ngi ci plateau bi ma jox la kàddu gi balaa ñuy dalal gan gi. waaw voilà Sylvie maa ngi nuyu nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñuy déglu jamono ji ci réew mi FM ak sur la page donc Facebook. Mm-hmm. donc di jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi taamu heure bi émission. émission euh, espace jeune euh, sans filtre donc euh, di jaajëfal suñu invité du jour mhm. donc di nuyuwaat ñëpp waaw soxna Rokhaya Sy ñu lay massaw ci long voyage bi nga def ci waawoon ba fii c'est pas évident ñu lay mhm. dalal bu baax di am mbégte kontaan te dalal la fii ñu bàyyi la nga nuyoonte mbokk auditeur yi asalaamaaleykum waa Rewmi FM maa ngi leen di nuyu di leen remercier aussi ci invitation bi di wax ni le voyage a été long mais mhm. jar na ko aussi. Mhm. d' accord merci, euh, merci beaucoup donc euh, dañuy jëli Doña Lola euh, Garcia Martinez espagnol la moo di vice présidente euh, bu Cabildo de Fuerteventura en espagnol la chargée de la planification des finances de la promotion économique de l' emploi et de la durabilité environnementale dañuy déglu extrait bi si en espagnol waaye bu ñu paree kii di Momar Diop. Mhm. moom moom suñu mbokk la dinañu ko. traduire donc ñu déglu euh, Doña Lola García Martínez. lleva a cabo el proyecto para el intercambio empresarial entre Canarias y el África Occidental. AFRIMAT nace con la intención de reforzar también el proyecto AFRIMAT que surgió ya desde años anteriores. Lo que buscamos es eh, la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y el empoderamiento también a través de ellos de, la mujer. Intercambios en la innovación, en la consolidación de la red de cooperativa internacional y se llevan a cabo varias acciones. Una de ellas es la de 100 mujeres para el intercambio con África Occidental. Ahí se trabaja el emprendimiento, la innovación, el marketing, el liderazgo de la mujer Otro de los proyectos que se lleva a cabo es la formación a distancia a través de un convenio con Radio eh, El tercer punto también que llevamos es red de contactos, que las mujeres empresarias puedan ponerse en contacto entre ellas con los proyectos que, crean convenientes para saber cómo trabajar o cómo implantarlos en su zona. Y el cuarto proyecto que también se lleva dentro de AFRIMAC son eventos internacionales. Para coordinar acciones también sería un punto de encuentro para coordinar acciones del tipo que ya estábamos diciendo, es decir, innovación, empoderamiento de la mujer, el emprendimiento, esas acciones, eh, intentar coordinarlas con, países de África. con los que estamos trabajando ahora mismo es Senegal, Mauritania y Cabo Verde. voilà merci euh, Léon mi féete ci cabine technique bi kooku ngeen doon déglu moo di Doña Lola Garcia Martinez wax naa ko sànq mooy vice-présidente euh, Cabildo de Fuerteventura chargée de la planification des finances de la promotion économique de l'emploi et de la durabilité environnementale euh, di Afrimac ñoom nañ nekkal en partenariat ngir sensibiliser jigéen ñi ñuy entreprendre waaye dañu nekk en ligne ak Momar Diop moom tamit Afrique Mag la nekk ngir mu traduire ñu li nga xam ne moo di vidéo boobu la ñoon déglu en espagnol Momar euh, waaw soxna Sylvie na def euh, maa ngi lay fay bu baax ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar effectivement eh, ñu ngi nuyu sa auditeurs yi ak auditrices yi nga xamante ni ñooy déglu sa émission bi nga xamante ni wax dëgg yàlla am na audience bu am solo. Mm-hmm. au niveau national ak international ndax fii nga xamante ne mooy ñoo ngi nekk ci diwaanu Espagne ñu ngi koy déglu tamit donc mm-hmm. muy liggéey bu am solo. Mm-hmm. bu nga xamante ni réew mi FM mi ngi koy amal. Eh, li nga xamante ni nag eh, moom la ñuy wax ni muy Afrimac émission bu ñu jagleel Afrimac ku ni Afrimac 2 da ngay jàpp ni amoon na Afrimac 1. Afrimac 1 ba mu amee. Eh, li nga xamante ni mooy ay jigéen ñi nga xamante ne ay ndaw yu Sénégal yi leen jëlee woon fi nga xamante ne mooy Sénégal indi leen Espagne mhm. defal leen formation bu ñu jógee ci loolu aussi am ay ndaw yu jógee Espagne dem Sénégal def foofu aussi formation pour une période de quinze jours mhm. lii nga xamante ne nag mooy Afrimak 2 continuité rek wax ko mhm. si sa njëlbeen Afrimak programme la bu nga xamante programme d'échange commerciaux technologiques et entrepreneurs et en matière dafa englobé ñetti réew. Mm-hmm. muy Sénégal Cabo Verde ak euh, Mauritanie. Euh, wax naa ko ci njëlbeen émission yu nga xamante ne jotoon naa koo def pourquoi le choix du Sénégal ndax jàpp na ne Sénégal ak euh, wax dëgg yàlla Forteventura am na relation bu poussé relation bu am solo ndax umpale wu fii nga xamante ni mooy ci Forteventura y a 17 set mhm. communauté 17 communautés yooyu wax dëgg yàlla la communauté sénégalaise am na ci solo bu baax a baax duggante ak saamate na ak autorité bu baax a baax. Mhm. loolu bu amee wax dëgg yàlla lii nag euh, euh, euh, li wolof njaay liñu di remercier foofu ki nga xamante ni mooy feu maître Alioune Badara Cissé ndax lu bëri lu nga xamante ni tey ji am nañ ko def nañ ko fii nga xamante ni moo ci diwaanu Fuerteventura entre les autorités insulaires ak la communauté sénégalaise dox na ci dox bu am solo loolu lépp wax dëgg yàlla ñu koy rafetlu di ñaan yàlla subhaanahu wa mu xare ko ci àjjana gën a kawe ndax bu ñu sañoon tey ji lii mu fekk ko ndax liggéey na ci liggéey bu am solo mm-hmm. wax nga tout à mm-hmm. ni dañ fa dañ dañ ko financé à hauteur de neuf cent soixante onze millions neuf cent onze mille trois cent quarante mille virgule cinquante trois euros mhm. et donc quatre vingt cinq pour cent appartient au fonds du FEDER loolu wax nga ko tout à mhm. l'heure mhm. li nga xamante ni moom la ci jublu rek fi ñu toll nii renforcer wax dëgg yàlla la capacité de la du genre féminin ndax umpluwuloo ni eh, jigéen ñi wax dëgg yàlla dooleel gan leen waroon a dooleel amul bu fekkee ni aussi jigéen la plupart du temps duñu gis accompagner du leen gis ku leen ku leen guider. Mhm. loolu tax na Afrimag jóg tey ji commencé def sensibilisation commencé jox information aussi guider accompagner eh, ñi nga xamante ni mooy les femmes entrepreneuriat ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci diwaanu Sénégal. Mhm. Euh, soxna euh, Sylvie. am na solo euh, yéen Momar est-ce que da ngeen di financer. waaw waaw laaj bi laaj bi am na solo ndax bu ñu waxee ni dañuy financer on ne peut pas donner de fausses expectatives. Mhm. Afrimak li ko tax a jóg mooy accompagner mooy guider. ñi nga xamante ni mooy l'entrepreneuriat féminin. Mhm. dañ ko commencé Sénégal wax naa ko njëlbeen dinañ dem Cap Vert dinañ dem fi nga xamante ni aussi mooy Mauritanie. Mhm. bu nee dañuy commencé financer rek euh, wax dëgg yàlla te nit ñi aussi ñëw dugal seen ay projet gis ñu financement bu boobaa dañuy wax ne dañuy nekk dañuy wax ay naxembaay. te de defuñu ay li ñuy wax c'est une réalité le problème des bëgguñu koo tudd pour le moment. Mhm. mais ñi ngi waxtaan a ngi waxtaan mhm. travers pour mettre sur pied une benn plateforme boo xamante ni. Mhm. wax dëgg yàlla dina nekk plateforme boo xamante ni képp koo xamante ni am nga projet. mën nga ko dugal ci bu fekkee projet bi solvable na. Mhm. bancable na nga dugal ko ci plateforme boobu plateforme boobu mhm. mhm. dañuy financer bu ko defee ñëpp riir ñëw bu fekkee ni gisoo financement. ëllëg a ciblé nga ne Momar Dieng Diop kat la mu waxoon ak waa Afrima kat doxaluñ ko ñun lépp lu ñu def aussi day nekk lu clair lu limpide lu leer. wax dëgg yàlla gis na ni Sénégalais yi nga xam jigéen Sénégal yi bëgg nañ ku leen jàppale. bëgg nañ ku leen gunge moo wax dëgg yàlla fas nañu koo yóbbu Sénégal mhm. ka nga xamante ma nga Sénégal toog am projet bi xamul fu muy jaar bu gisee émission bi gis ka nga mhm. xamante ni même amoon nga xamante la bëggoon développer bu ko defee dina encore taalal yoon wi mu xam fu mu jaar ba ëllëg si wax dëgg yàlla mu mën a euh, suqali réewam suqali njabootam suqali fi nga xamante mooy goxam jaajëf merci beaucoup Momar Dieng Diop depuis l'Espagne waaw ñu koy jaajëfal bu baax di jaajëfal bépp auditeur auditrice bi nga xam ne euh, yaa ngi ñuy suivre depuis l'Espagne Rokhaya balaa may euh, soxna si euh, plutôt balaa may ñëw si yow mm-hmm. dañuy dalal kii di Rokhaya Cissé moom mi ngi si ligne bi moom itam mënul teew fii mais moom cay yëngu entrepreneur la jigéen la ci wàllum couture coiffure yore itam école de formation Rokhaya Cissé ñu ngi lay nuyu Rokhaya Cissé. waaw. sëñ va. ça va très bien Rokhaya dalal jàmm ci émission sans filtre. ñu bàyyi la nga nuyonteeg mbokk auditeur yi. waaw. maa ngi nuyu suñu ma invité ci émission bi mhm. waaw di nuyu nag euh, sama mbokk auditeurs yi may déglu ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu mhm. nekk turam ak santam di kontaan nag ci teewlu bi mhm. macha allah émission bi am na solo d'accord euh, yow euh, ya yow entrepreneur nga nekk jigéen ci lan nga yëngu waaw euh, man en tant que euh, madame Ndiaye Rokhaya Cissé. maa mhm. ngi nekk entrepreneuriat. Mhm. di yëngu ci mode. Mhm. waaw ñu yor euh, salon de coiffure. ak école ak atelier de couture. waaw ah, yow depuis kañ nga nekk ci milieu bi maa ngi di yoraale école de formation di former ay xale yoo xamante ne pour ñu am métier mhm. waaw muy mode ci wàllu coiffure bi ak couture bi d'accord waaw maa ngi di yoraale école de formation am na solo yow depuis kañ nga ci nekk nga nekk ci milieu bi de depuis kañ nga commencé entreprendre waaw liggéey bi maa ngi ci nekkoon euh, euh, quatre-vingt 89 maa ngi ci woon ba léegi. Mhm. depuis 89. ba mhm. léegi ngi ci mhm. euh, kan moo la jàppale ndax dañ la financé wala yaa demal sa bopp. non non man maa doon nekk rek ba léegi fu fu euh, fan la affaire yi toll 89 ba léegi boo ñu doon defal évolution ndax mbir yaa ngi dox. waaw 89 ba léegi mi ngi dox maa ngi góor di demal sama bopp. waaw vraiment euh, parce que salon bi laa njëkkoon yore après à la fin ma mujj dugal couture bi parce que man école laa jàng bi ma bàyyee école à Sam 2 mhm. dama dem def formation couture. Mhm. après nag man bëggoon ay létt rek nekkoon nag ci létt yi tellement que ba. Mhm. mujj gi couture bi dama ko tegoon mais à la fin bi ma demee ba installé sama salon di liggéey ba nit ñi ràññee ma après dama mujj. indiwaat couture bi. Mhm. waaw ubbi sama atelier nekk di ñaw. Mhm. après euh, ma dem ba mu jig dem ma ubbi école. parce que mhm. banlieue bi ma nekk xale yi soxla nañu ku leen jàngal métier. a na tey ci laa ubbi école. pour former waare xale yi tamit après ëllëg pour ñu am métier. waaw affaire yi noonu la noonu la évolué ba yegg ci foofu moo tax léegi instant bi nii maa ngi nekk di yore salon de coiffure ak couture. en même temps mu yoraale école. d'accord waaw mu mel ne Sonorokh euh, jamono ji naka ngeen def pour mën a euh, gën a évoluer seen liggéey parce que gis nañu saa su nekk wàllu couture bi day day gën a développé wàllu coiffure day na ngeen def pour yéen yi nga xamante ne yéen yéen yéen euh, li nga xamante ne moom moom mooy tendance bi waaw affaire yi moom loolu la mode bi instant bi ni moom xaw la seere temps parce que day évoluer baax a baax a baax a baax waaw moo tax nag instant bi ni nag waaw pour ñu mën a jàppale xale yi. Mhm. il fallait que tamit ñun ñi nga xamante ne ñoo jàppale xale yi pour ñu am métier ñun dañ soxla pour ñu jàppale. Mhm. waaw pour ñu gën a renforcer waat suñu ay matériel mhm. ak suñu euh, bërëb yi nga xamante dañ fay liggéeye pour mu am ay matériel professionnel yoo xamante ne pour xale yi tamit bu ñuy leen di encadrer ba pare ñu mën leen euh, defal ñu mën a am tamit euh, encadrement boo xamante ne ëllëg dañuy mën a dem. ak seen expérience bu baax. Mhm. waaw euh, loolu moom am nañ ci soxla bu ñu mënoon am daal ñuy gën a jàppale ndax vraiment moom la référence. moom ku ko déggul dem xam nga li mu formé ci ay xale xaw ma nu toll macha allah. macha allah am xale yi pour dem am suivi ak ñoom mais mhm. tamit day xaw a compliqué waaw. Mhm. loolu nag moom bu ñu amoon ku ñu accompagner dañu ci jàppale pour xale yi yi nga xamante ni ñu ngi leen di tàggat bu ñu paree seen jàng yooyu ñu am suivi boo xamante ne tamit ñoom dañuy mën a demal seen bopp ndax dafay am solo trop ci xale bi jóg dem defi formation. Mhm. pour am métier ëllëg. kon yéen accompagnement ngeen soxla jamono ji. wallaay soxla nañ ko moom soxla nañ ko moom parce que vraiment mooy li ma la expliqué rek waaw dañuy am dañuy manqué ay moyens. Mhm. dañuy ay manqué ay moyens parce que formation dafa laaj euh, professionnel surtout matériels yi. Mhm. waaw matériels yi ak emplacement yu baax yoo xamante ni dañ ci mën a def xale yi ñu mun leen defal encadrement yu baax bu ëllëgee tamit ñoom tamit ñu mën a euh, demal seen bopp. Mhm. d'accord pour mën a dem. d'accord Rokhaya euh, 89 ba léegi yàgg na ndax amoon nga ay jafe-jafe ba ngay soog a door. waaw day am ay jafe-jafe day am ay jafe-jafe mooy comme li ma lay wax nii rek. waaw mhm. parce que euh, ñun côté banlieue bi surtout sax ñu nekkee waaw dafa xaw metti parce que tamit euh, formation professionnelle bi ñuy def xale yi ñuy formé da ngay gis yi euh, ci ëpp day day bëri ay cas sociale trop mhm. waaw day bëri ay cas social yoon nag da ngay toog ak moom rek di tamit defaale sa kattan ak li nga mën pour jàppale xale yooyu nga xam ay cas social lañu. Mhm. pour tamit rek ñu am métier. Mhm. waaw jafe-jafe tam da ngay loué da ngay loué euh, place am bi ngay euh, defee sa formation am nga bëgg tamit yanu loolu xam nga ak charge yi nekk ci biir. Mhm. employé yi xam nga bëgg encore jàppale waale cas social yooyu. yooyu yëpp day nekk loo xamante ay complications xam dañ ciy nekk. mu métti xaw trop tamit si ñun ñu nekk ci rek di góorgóorlu. d'accord yow fan nga féete noonu ci euh, banlieue bi. maa ngi nekk Thiaroye Tëli Diallo. Thiaroye Tëli Diallo picc bi waaw. merci beaucoup soxna Rokhaya Cissé. waaw merci beaucoup madame Sylvie. waaw Rewmi FM mi ngi lay sant di la gërëm sa participation ci émission bi merci. waaw ñu koy jaajëfal bu baax. voilà Mor Fall suñu partenaire dégg dégg uh-huh. nañu uh-huh. Euh, bon li mu wax nii kon je pense que euh, xam nañ ne li mu jàppale ñenn ñi. accompagnement la defaat aussi moom aussi euh, elle a été donc bi nga xam gagnante benn compétition bu am ci li nga xamante ni moom mooy ñi def wàllu. coiffure couture c'était mhm. en en 2005 je pense mhm. euh, c'était une compétition nationale donc mu nekkoon ki nga xamante ne moom moom moo nekkoon euh, gagnante bi mu nekk euh, lu ñuy wax trophée Miss Darling donc mhm. ci wàllu coiffure yooyu je pense que booba léegi nag compétition yooyu am amatul ñu ni mel ndax ñu gën mën doxal wàllu formation ci ci ñi nga xamante ne amuñu sensu kiiwu si jàng bi yooyu justement est-ce que état bi mi ngi jàppale genre yi man c'est la question que je me ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi si nekk. si mm-hmm. suñu invité ñoom peut ñoom dinañ mën a xam ba xam yéen jàpp parce que état bi si lu bëree bëri bëri ci ñuy gis ci wàllu euh, jàppale ñu jàppale soit. dañ koy affilier ak li xam ne mooy a bénéficier aussi mbir moom mhm. euh, ku farul si ñoom doo am financement boo koo xamante ne tu es boo mhm. amul accompagnement wu yenn institution internationale yi daanaka euh, il faut nga euh, làqu seen ginnaaw wala nga doxal sa bopp d'accord mhm. je pense que waa Afrimat dégg nañu li nga xam ne moom la jooytu moo di ñoom accompagnement la ñu soxla donc soxna Rokayassi yow yaa ngi bokk ci club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal di ab kuréel boo xam ne yéen ay entrepreneur kese la dajeel euh, voilà euh, nga yëngu ci wàllum agro alimentaire ak habillement yow depuis kañ nga ci dugg ak lan moo la dugal ci agro agroalimentaire tout abord comme étudiante en QHSE qualité hygiène sécurité et environnement je me suis dit pourquoi pas ma def benn produit bu nga xamante ne ni ça va avoir rapport mm -hmm. avec euh, ce que j'ai étudié mm-hmm. donc ci côté domaine agroalimentaire mm-hmm. mu nekkoon loo xamante ni dama ko yàggoon a bëgg mm-hmm. mais récemment laa ci lancé wu même si am naa ci ay en euh, expérience yoo xamante ne ni c'est passé donc récemment laa dugg ci alimentaire bi par rapport ak abima bi mën naa ni depuis 2016 maa ngi ci parce que dama doon def euh, chaque jour may gis ay nit ñuy sol ay yére mhm. dama doon wax naan lan moo tax nit ñi duñ ci boole vax mhm. ci loolu laa commencé doon def euh, ñaw jënd tissu trois mètres quatre jox mhm. euh, tailleur bi mu defar des aussi ma dem jënd benn gilet après ma changé jël benn couverture bi def fii nii euh, vax def fii nii beneen li même si depuis certain moment dafa xaw a def mais maa ngi ci nekk di benn innovation boo xamante ne ni war a créer yeneen modèle yu war a génn bientôt. lu tax mu nekk euh, stand by nga arrêté ko ndax ay problème la wala. pour le moment c' était parce que ñu ngi gis que ni concurrence bi mi ngi fi woon. Mhm. te comme li ñu naan Sénégal moom des fois xaw fi liggéey day xaw a métti. Mhm. da ngay defar mais nit ñi dañuy jël après dañu lay daaneel. Mhm. dañu lay dañu lay daaneel aussi. y' aussi le problème bi nga xamante ni nii. y a l'offre sur le marché et mm-hmm. comme entrepreneur da nga war a xool loo xamante ne ni c'est innovant mm-hmm. donc il faut ñu jël quelque moment def innovation boobu noonu mm-hmm. pour gën a mën a dëggal suñu bopp ndax entrepreneur day laaj nga dëggal sa bopp yow lan moo la dugal ci entrepreneuriat lan moo tax nga ne da ngay entreprendre damay entreprendre parce que déjà en tant que femme je me dis que ni jigéen gu nekk war nga mën a indépendante mhm. financièrement mhm. war nga aussi mën na jël sa bopp ak sa famille en charge mhm. aussi nekk aîné euh, aîné de ma famille donc je dois servir le bon exemple et aussi dëggal sama bopp daal ba nga xamante ne ni kenn du mën a jaar ci sama kaw même aussi am na influence wu club bi nga wax sànq mm-hmm. muy club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal mm -hmm. qui ambitionne à renforcer les compétences des jeunes dans les domaines du leadership de l'entrepreneuriat et des TIC mm-hmm. donc euh, loolu gën na ma ci gën a dugal ba entrepreneuriat gën ma neex. Mm-hmm. yow euh, euh, sa ba ngay soog a commencer foo jëlee sa financement kan moo la jox xaalis. bi may doog commencé comme njaayum parfum laa def laa njëkk a def mhm. bi ma koy def dama daan def suñ ma joxee xaalis pour ma dem école dama ci daan denc mhm. léegi lu ma am après nag tombanteeg fin du mois bi lu luñ ma may sama yaay lu ma may wala sama papa ma jël ko jënd parfum jox professeur yi mhm. loolu laa njëkk a en 2016 Mm-hmm. ok man man li ma bëggoon xam moom mooy euh, moom dafa dafa jàng benn genre kii bu am solo. Mm-hmm. muy wàllu cuisse mooy wàllu tout ce qui mm-hmm. euh, jëm ci wàllu qualité. donc je me dis que kon yow xam nga naka nga mën def pour jaay des produits euh, yi nga xamante ni ñoom la nit ñi di di utiliser. mais a commercialiser seen yooyu parce que la dañ ko import indi donc lan lan mooy bloqué ndax yéen yéen ngeen a bëgg di copier à chaque fois ci li nga xamante ne ça existe d' abord wala boog dafa am euh, problème bu am ci li nga xamante moom mooy euh, produit yi di créer mu nekk loo xamante ni euh, a alors que yow yoo xam nga lan mooy qualité ak lan lan moo jëm ci wàllu jaay produit yi ngir mu gën a gën a a yomb tout d' man l' idée copier moom je me dis que ni c' pas moi. Mm-hmm. parce que tey jii nii mën nañ ni mën nga copier mais intelligemment. Mhm. da ngay xool loo xamante ne ni am na ci marché bi nga innové ko wala aussi nga def sa création mhm. ndax entrepreneuriat loolu aussi daf koy laaj mhm. création loo xamante ne ni lu nouveau la nga def ko sur le marché le fait que aussi sama formation QHSL te j'envisage vraiment parce que lii nii ce sont des les premiers produits j'envisage vraiment di si la fin de l'année am na benn large gamme bu nga xamante ne nii la salivaire war na ko génne. Mhm. mais mais yow da am benn surplus ci par rapport ak ñenn ñenn entrepreneurs parce que ñenn ñi. Mhm. peut-être que yow euh, li nga jàng jànguñu ko jànguñu cuir sax xamuñu naka la ñu mën def ba mën a euh, jox benn qualité produit ngir mën mhm. koo jaay à l'extérieur. donc yow yow lan la problème bi yow am nga benn surplus ci ñoom ñoom peut-être amuñu benn formation bi ñu dee ñëw rek groupement de femmes la ñu nekk ñu dañuy créer lii ak lii ak lii ak lii. lan nga mën a jàpp ni en gros moo la Mm, pour l'instant la documentation parce que li ñu naan la documentation en qualité mhm. est la force majeure mhm. ndax tey jii documentation qualité bi ak euh, les comment dirais li nga xamante ne ni mooy wàllum këyit yi mhm. yi nga xamante ne ni mooy war a mën a tax ndax tey jii nii pour nga jëlee fii nii yóbbu da ngay def euh, fra da ngay def aussi def ay analyse yi nga xamante ne ni ça doit être mu jaar ci laboratoire mhm. et autres donc xëy na au Sénégal la certification peut-être en alimentaire ou bien la certification pour pouvoir sortir ses produits mhm. loolu dafay xaw a dëgër tuuti ci comme waaw ci comme entrepreneur yu nga xamante ni dañuy doog a door comme man mhm. day xaw a métti ci ñoom léegi nag ñoom dañuy obligé xam ni tey jii kat lii mooy mesure qualité yi lii dinañu respecter yenn euh, mesure ya nga xamante ne ni mm-hmm. produit bi ku ko lekk wala ku ko jëfandikoo dina la mën a jariñ te du la lor donc loolu la ñuy mën a maintenir xam naa xam naa du ñàkk nga xamante ni mooy mooy laama dina indi ay leer ci jafe-jafe yi ñuy nekk da ngay mm-hmm. teg foofu sa baaraam euh, Rokhaya ñu jëli euh, Lama Ba Euh, mi ngi en direct vice-présidente du réseau national des femmes pour le développement euh, madame Ba ñu ngi lay nuyu di la dalal ci suñu émission sans filtre allo allo madame allo Lama Ba waaw kon ñu continuer rek bu yembee ñu daal di koy jël euh, donc yaa ngi doon wax lu am solo euh, mhm. ya mhm. maanaam ci euh, jafe-jafe ak le fait que yéen seen seen domaine xawul niroo torop comme yeneen domaine yi dafa mhm. am fu mu war a jaar waaw loolu la ndax tey jii nii lañu naan lekk luy jëm ci biir dañ ko war a seet seetantal ko balaa ñu ko jox kenn mu koy jëfandikoo xëy na comme frontière la te day jéggi réew dem ci réew mm-hmm. réew mu nekk ak la nga xamante ne nii mooy condition mm-hmm. ya fa lekk war a duggee mm-hmm. donc euh, ci suñu ay mëbët bokk na ci li nga xamante ne nii bëgg nañ ko def en tant que qualiticienne donc euh, bëgg naa ko ci gën a apporter pour entreprise bi nga xamante ne nii mooy la Saliver gën a jug gën a jëm kanam par rapport ak documentation ak les papiers et analyses qu'on doit faire la salivaire mooy. la salivaire c' est le nom de mes activités. à côté agroalimentaire. ñu dalal euh, Lama Ba dinañ ñëwaat si la salivaire alo allo oui. oui euh, Lama Ba. waa salaamaaleykum. waaleykum salaam ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax sa teewaay suñu émission. Euh, yow yaa di vice présidente réseau national des femmes pour le développement. waaw dëgg la Sylvie maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax di ñëpp. Mm-hmm. di rafetlu bu baax a baax invitation bi. Mm-hmm. Euh, di nuyu ñëpp. d'accord. di ñaan yàlla suñu kàddu yàlla na leen fekk ci jàmm. amiin yow euh, madame Ba yaa jiite réseau national des femmes pour le développement yéen lan moo leen tax a jug kuréel waa dëgg la dëgg la man maa ngi tudd Lama Ba. Mm-hmm. Euh, dëkk Yëmbal Sud. nekk vice présidente euh, fédération des femmes pour le développement du Sénégal muy FEFADES. Mhm. mais présidente nationale bi ñu ngi koy wax Aminata Ndiaye. d'accord voilà. Mhm. yéen seen kuréel bi lan moo ko tax a jóg. suñu kuréel bi développement moo ñu tax a jóg. Mhm. développement jigéen ñi ak développement ndaw yi. ñu nekk ci formation formalisation ak financement. au niveau national. voilà. d'accord euh, tey euh, yéen yàgg ngeen wala yàggoo leen ndax euh, est-ce que mën nga ñu jox ay orientation recommandation wala conseil pour jigéen bi nga xam ne tey am na idée de projet bëgg na amal boppam dara bañ a dépendre ci kenn fan la dëgg la nu mu war a def d'accord ñun ñu ngi existé depuis deux mille quinze mhm. ñu ngi existé au niveau national mhm. ñu taxaw nag pour jàppale jigéen ñi pour forma former leen formaliser leen. Mm-hmm. xamal leen yoon bi. Mm-hmm. won leen naka la ñuy mën di mën a jëriñ seen bopp pour doon autonome. Mm-hmm. parce que jigéen boo bëggee mu mën a jëriñ boppam danga koy xamal. jàngal ko. ba pare doo ko dugal ci loo ko mën a dugal. dëgg la ci boobu tànk tànk nag la taxaw ñun fédération des femmes pour le développement du Sénégal. Euh, tey ku am projet Euh, mhm. jigéen bu jug bëgg a mhm. jaay dara wala bëgg def bëgg entreprendre daal mu amal boppam. Mhm. loo koy conseiller. waa jigéen ji may euh, conseiller pour mu mën a amal boppam dajo d'abord lépp lu muy def na ko gëm. na ko gëm te xam ko. parce que nit ki booy def loo xam ni gëmoo ko xamoo ko tamit boo ci demee doo ci sori. mais bu fekkee ni xam nga li bëgg nga li ngay def. xam li ngay def. allah kulli aali boo ci jubloo foog nga réussir ci parce que gëm nga ko. Mhm. muy lan muy même bu dee dërëm. Mhm. dërëm boobu fépp foo koy dugal mu fekk muy foo xam ne da lay rapporter. Mhm. mu fekk moo foo xam ni boo ko dugalee da nga ko étudier ba pare doo ko fa dugal. ndax ëllëg mu mën la jëriñ. kon nag bépp jigéen bu may euh, euh, conseiller mooy lépp looy dugg d'abord gëm ko ba pare. boo ko gëmee it xoolal ndax amal na la njëriñ wala amalul la njëriñ. bu fekkee ni ko amal na la njëriñ. nekk ci boo ci nekkee yàgg yàgg njëriñ dina la ci fekk. Mm-hmm. ok ma euh, benn question bu bëggoon laaj ci wàllu euh, femmes yi ngeen di euh, parce que bi moom moom mooy financement wala mhm. dañuy gis ne dañ naan former nañu femmes yi bëri ci wàllu céréales locales former nañ leen ci mhm. wàllu defar saabu mais après mhm. attestation bu ñu ko faree ba am dañ leen toogaat seen kër duñ duñ mujj poursuivre loolu nga xam def nañ ko donc pour yow lan moo nekk blocage bi tax femmes yi duñu mën a continuer seen liggéey ndax problème de financement la wala boog volonté bi nga xamante xam ne war nañ ko mën def ngir mën a ngir mën a euh, continuer euh, seen yooyu nga xamante ne jot nañ ko acquérir comme comme euh, expérience wala boog comme formation. Mm-hmm. waaw ñun d' abord fédération des femmes pour le développement du Sénégal ak seen présidente Aminata Ndiaye li ñuy toujours def ak femmes yi femme bu ñu mën a gis ci àddina ñu war a liggéey ak déjà. Mm-hmm. dañ lay formaliser. Mm-hmm. parce que femme bu ñu formé te formalisé la. aussi day nax saay. bu ñu la formalisé ba pare formalisation mooy nga wut këyit. identification sa bopp ba pare. Mhm. buñ la ko defalee ba pare lu luñ lay def mooy former la. buñ la formé ba pare li ci des mooy suivi ñun duñu formé benn femme au niveau national ak Dakar fu mën a nekk femme bu ñu mën a formé. Mhm. dañ lay suivre après. suivi bi mooy tey buñ la formé pour trois jours muy en céréales di en saponification di en fruits et légumes kuñ ci formé dinañ la suivre. Mhm. dinañ la suivre deux ou trois fois bu ñu demee ba deuxième fois troisième fois nga mën a demal sa bopp ñu bàyyi la. parce que li gën a bon mooy former femme bi benn yoon ba pare bàyyi ko mu dem. bu demee day dem ba ci bi am lacune te lacune yooyu mooy indi problème ëllëg ba femme bi du mun a continuer pour demal boppam. ba nga xam ne ñun képp ku ñu former dañ lay former ba pare suivre la ba xam ne gis nañ ni def nga mën nga ñu bàyyi la ba pare nag wutal la financement. jox la ngay liggéey. maman yéen seen kuréel bi am na doole développement moo ko tax a jóg. ndax nguur gi mu ngi ciy dugal loxoom. non non am benn appui nguur. lépp lu ñu mës a am mooy suñu cotisation personnelle. Mm-hmm. Mm-hmm. cotisation yi la ñu am ak carte yi nga xam ne ñu ngi koy jaay di ko am membre yi ñu jël ko di ko dajal dem dimbali yeneen néew si doole yoo xam ne suñu mbokk jigéen lañu. Mm-hmm. amuñu wala yenn autorité yi nga xam ni bëgg nañu ku leen jàppale ci seen njaboot. muy seen i femmes. ñu mu contacter ñu bu ñu contacter ñu organiser wu ak suñu moyen dem ñu adhéré faamam ñu ñëw formel ko ay faamam suivre ko ko ba yàlla def ñu tegu ci yoon. noonu la ñuy doxee mais mosuñu am benn euh, apport bu jóge ci nguur. ñii dee ndax ndax financement boobu ci état bi ndax dafa dafa euh, caagi ne di da ngeen deful politique moom moo waral euh, du ngeen faral am ci financement yi parce que la plupart yi may gis ci financement yi joxe ci femmes yu bëri dañ koy dañ koy tàqale ak li nga xamante ni moom mooy moom mooy politique. te mhm. yaakaar naa yéen seen organisation boobu dafa apolitique su ma juumul. waaw mën na nekk mën na nekk xëy na loolu la parce que bind nañu DER bind nañu fois. Mhm. non non pas de réponse et pas de de, de parce que ñun politique ñu pour le ku nekk nag ci fédération bi mën nga dem sa base politique. Mm-hmm. mais ñun ci biir fédération bi on n'a pas de couleur. Mm-hmm. développement rek la ñuy def. Mm-hmm. voilà kon nag de ce fait ñu def nañu bind nañu DER sa fait un an man mi maa jël lettre bi yóbbu ko ba DER. teg ko ci loxo ñi ma ko war a teg ak décharge mais ba tey gisuñu fenn fu ñu woowee pour financer ñu. weddiwu ma nag peut-être financement bi je sais pas du ma ko mën a wax parce que euh, mënuma ju leen juger mhm. mais nag gis naa ni ñun fédération des femmes pour le développement du Sénégal amagul ci seen benn kii benn benn benn réponse ou bien financement bu jóge ci ñoom d'accord merci beaucoup Lama Ba looy tàggatoo mhm. waaw euh, bu dul rek di nuyu ñëpp. di nuyu bépp membre fédération Femmes Face pour le développement du Sénégal. Mm. di nuyu suñu présidente ñu koy wax Aminata Ndiaye man may vice présidente bi ah di tàllal loxo aussi bépp femme boo xam ni. Euh, da nga jóg pour développement pour développer sa bopp. Mm. di la tàllal loxo pour nga approché wu fédération des femmes pour le développement du Sénégal ah dinañ la gunge dañ la jàppale. Mm. dinañ la teg ci yoon boo xam ne ëllëg doo réer. parce que li gën a bon ci àddina mooy nga nga dugg foo xam ni da ngay réer da ngay mm-hmm. mais femme ñun fédération liñ tax taxaw mooy dimbali jigéen ñi rek mm-hmm. dimbali jigéen rek moo ñu ñor au niveau national parce que fi mu nekk defe naa ni am na suñuy vidéo sax yoo xam ne gis ngeen ko euh, defe naa vidéo yooyu c'est au niveau national ñu ngi demoon ay Patar ay dans Fatick ak fu nekk lañ fay dem mm-hmm. di former di leen formaliser di leen jàppale ci suñu peu de moyens bi ñu am d'accord est-ce que pour tënk nii rek mu ngi ñoo wax ñaata ñaata femmes ngeen formé gum ci au niveau national ba ngeen euh, tàmbalee ba léegi. Euh, ñun a soixante dix mille membres. Mm. Mm. a formé merci okay. beaucoup Ba. merci euh, Sylvie maa ngi leen di remercier et puis di nuyu sama famille di nuyu sama doom di nuyu ñëpp. di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal jàmm ci suñu développement bi ñu nekk yàlla yaatal ñu ko. Mhm. may ñu ba femme yépp ñu mën leen taxaw. Mhm. ba ku ci nekk doon autonome parce que loolu mooy suñu suñu suñu suñu suñu suñu slogan. na femme yépp nekk autonome. Mhm. au niveau national. incha allah te ñu ngi ci taxaw tànk yàlla ñu ñuy teg ci suñu tànk ak suñu doole. ak présidente Aminata ñu continuer di ko def incha allah madame Ball. d'accord merci jërëjëf merci beaucoup Lama Ba ko jaajëfal bu baax moo di euh, vice-présidente euh, réseau national des femmes pour le développement li leen tax a jug dégg nañ ko Mor mm-hmm, Fall mm-hmm. lu ñu def ba femme doon autonome te loolu moo tax a jug waa Afrimat itam mm-hmm. ñoom it ci tànk yooyu donc euh, la ñuy dox ñu ngi woon ak Rokhaya est-ce que duñ la bàyyi tam nga présenter ñu sa produit yi Fall boo mënee jël produit rek comme yaa ngi def direct bi sur les réseaux sociaux bi nekk ci sachet bi lan la Euh, poudre la. Mhm. c'est fait à base de mil. Mhm. maïs arachide ñebe blé. Mhm. mu nekk produit boo xamante ne nii c'est riche en fer. Euh, nekk source de protéines. am vitamine E. vitamine B am calcium aussi. mu nekk produit boo xamante ne nii xale yi mën nañ ko utiliser li nga xamante ne nii ñooy sportif yi. mën nañ ko utiliser les femmes allaitantes mën nañ ko utiliser aussi les femmes enceintes dañ koy utiliser. Mhm. Euh, bii loo ko mën a togg. bii bu la neexee da nga koy ruy. Mhm. bu la neexee aussi nga def ko comme genre zirik. Mhm. def ci sa suukar sa meew ak lépp la nga xamante ne nii sentir nga ko ci rek. pour mu neexal ko. Ah, comme genre gofio la boo xamante ni c'est c'est de. Euh, du mboq wala wala dugub mboq léegi nag man moom damay bañ loolu. ñi may tëkkale ak Gofio parce que duma ma moroomam. Uh-huh. parce que c' est à base de mil maïs arachide ñebe et blé. Uh-huh. donc c' est plus riche que Gofio boobu noonu. Uh-huh. ndax tey jii nii ki nga xamante ne nii dafa nekk xale dafay dëgëral ya xam. ki nga xamante ne nii aussi soxla na fer xam nga. mu nekk aliment yi nga xamante ne ni lépp ci gàncax la jógee ko mhm. amul benn produit ba nga xamante ne dañ ko ci ajouté mhm. oui c'est naturel et aussi le bio mhm. on l'écrit pour signifier bien-être interne de l'organisme donc euh, lépp la nga xamante ne ni impurité la parce que euh, dañu ko ci utiliser il y a aussi les avis clients mhm. yi nga xamante ne am naa récemment benn njóobeen bu ma ni moom bi mu ko naanee daf ko lancé mhm. c'est-à-dire li nekkoon ci moom dafa deñ mhm. ak ñeneen ñi nga xamante ne ni ñu ngi koy utiliser pour prendre du poids donc cela di dire sama mbokk mbër yi nga xamante ne bëgg nañoo jël poids du genre mooy mën nañ ko mën a utiliser comme ni ñu utiliser yeneen yeneen yeneen produit bien sûr mën nañ ko utiliser mën nañ ko utiliser te aussi dafa baax ndax comme ak seddaay beeg yooyu noonu mm-hmm. yax yi euh, daf ciy baax ñu koy utiliser parce que dafa am calcium mm-hmm. dafa am calcium te source de protéine aussi mm-hmm. d'accord euh, am na yeneen produit tamit euh, yeneen produit yi moom bi ni mën nañu wax ni c'est fait à base de coco la meew ak sucre mais aussi coco gingembre la Mhm. am nañ sax yeneen euh, gamme de produits mais comme le temps me pressé. Mhm. te aussi comme dama amoon malade. Mhm. loolu moo taxoon mënu ma woon a indiwaale yëpp. ndax yow sa sa sa sa liggéey dafa yam rek ci wàllu euh, cadre alimentaire wala di nga dox ci wàllu hygiène lu mel ne defar ay ay ay genre savon parce que gis naa keroog ay yoo xam ne ay femmes ñoo kon defar. waaw saponification moom def naa ko def naa formation comme ni ko waa réseau kii di waxee ni maa ngi ko defoon ak benn entreprise bu ñuy wax métabo ma defoon defoon ko Bambey def naa ko aussi Kaolack. Mhm. Euh, commencé woon naa ko récemment. mais li nga xamante ne ni moo nekk problème bi mooy dama bëggoon a gën a avancer ci lii nii ba pare. Mhm. doog a lancer waat pour projet. Mhm. Euh, yow est-ce que euh, noo gisee nguur gi taxawaayam. Euh, par rapport ak entre jeune entrepreneur yi wala ñi nga xam ne daal dañoo bëgg a demal seen bopp ndax dégg nañ fi ay structure yoo xam ne dañuy financé mais bari na ci jeunes yoo xam ne euh, dañ lay ne da ngay déposer mais day mel ni du musa am suite. exemple bi mooy jël bu gën a terre à mooy comme ñun. au niveau du club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal. Mm -hmm. nous euh, des jeunes yi nga xamante ne ni dañu am ay groupe projet. Mhm. donc ci groupe projet yooyu noonu ñu ngi nekk di jëm di demal suñu bopp. récemment sax lañu am benn appel par rapport ak l'ANPEJ mais li ma ci mën a xam daal mooy ndaw nekk ndaw bu ñu xaar état. Mhm. parce que ñenn ñu ci bari ci jamono politique dañuy tardeel mhm. li nga xamante ne loolu la warloo ak ñun. xëy na l'état doon nañu jox nañu benn sécurité bi ba ñu mën a toog fii nii te bomb du tàkk. Mhm. mais leneen li ci des nañu jéem demal suñu bopp. man daal loolu laay conseillé. mais à la xam nga projet li ñu naan dafa am ay étapes tey jii nii mën nga am benn projet ba nga xamante ne nii c'est à hauteur de cent millions. Mm-hmm. ndax mën peut-être am naa benn projet ba nga xamante ne nii c'est de ces environs yooyu noonu. Mm-hmm. mais xam naa ni mënaguma ko am récemment nii. Mm-hmm. mais il faut nga commencer petit. xam nga di ramper ba keroog nga ci toll. c'est ce que nous avons fait avec notre nos projets là. nous avons un projet qui se nomme Seen Yëf. dans toujours dans le club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal. Mm-hmm. dañuy fexe jeunes yi nga xamante ñoo bokk idée projet ñu bokk. bu ko defee ku nekk ku mën a apporter dara nga apporter. Mhm. su ngeen paree ngeen commencé petit ba keroog ngay jot ci loolu noonu. Mhm. mais a kooku euh, dina yomb mun dina boppam ci benn produit boo xamante pour lancement bi rek commencement bi rek. Mhm. il machine boobu. dëgg la loolu moom lu ñuy dëggal la ndax tey jii nii am na yenn projet yoo xamante ni boo koy def. Mhm. sans état mënoo dem ndax tey boo bëggee génne produit. pour mhm. dem fenn. des fois il faut nga am yenn formalité yi mm -hmm. da ciy baax loolu ñu ñuy accompagner moo tax aussi dañ leen di lancer appel chaque jour ñuy jàppale ndaw ñi xam ne ndaw ñi bëgg nañu liggéey ndaw ñi am nañu jom mais des fois dañuy duñ dul am ku leen jàppale. Mm-hmm. ndax des fois xëy na ci nu ñu ko mën a misaalee des fois da ngay nekk comme sama classe gi xëy na nekkoo politique wala dara. Mm-hmm. mooy loolu. mais si wàllu formalité est-ce en règle parce que sànq maire mi ngi wax ñu bëri mhm. duñu formaliser seen bopp amuñu yéen këyit demuñu mhm. chambre de commerce ut ut ne yaa wala duñu genre affaire yooyu mhm. ngir au moins boo amee këyit boo ñëwee déposé ko xamante ni amul benn identification nationale ko wax duñu wóolu ñu jox ko jox seen xaalis est-ce que yow est-ce que vous êtes en règle wala boog seen euh, groupement boobu ndax am am ngeen ay këyit yu mën a tax biir club boobu noonu dañ ci am benn euh, gilex lañ koy wax mm. donc euh, c'est un GIE boo xamante ne ni dañuy regrouper plusieurs projets plusieurs projets ñu ngi ci ndaw ñaa ngi ci nekk di entreprendre am na ñu lancer seen bos am na ñi nga xamante ne ni ñu ngi nekk dans les démarches donc ñun tey jii nii pour ñu taxaw wax nit mu financé ñu xanaa ñu bañ ñoo financé mais on a tous nos papiers. Mm-hmm. yi nga xamante ne nii ñu ngi sur place. waaw lu ñu mm-hmm. desal ci minute bëriwul yow lu tax nga tuddee entreprise bi la Salivière. la Salivière parce que ça a rapport oui ça rapport avec euh, le goût. ndax tey jii nii boo nee glande salivaire. Mm-hmm. sa xel day dem ci goût. donc te entreprise la ba nga xamante ne ni. dañu bëgg évoluer ci wàllum transformation ndax euh, li ñu naan euh, agro alimentaire transformation la mm-hmm. Mm-hmm. te aussi wàllu jus naturel yi mm-hmm. donc c'est le début moo tax ñu tuddee loolu noonu laa la Saliver euh, loo xalaat ci Afrimat suñu partenaire yi Afrimat de li ñu dégg ñu développé ko fi moom wax dëgg yàlla bu dul naxi kase dal na xel ndax dañuy faral di dégg nit ñi di wax mais nag des fois jëf bi mooy manqué jëf bi mooy manqué bu fekkee dañu wax dinañ ko jëfee de <laughs> ah Diop mi nous sommes les bienvenus <laughs> ak Doña Lola Garcia. Ah, ñu ngi bu baax a baax. waaw moo faal boo amul beneen laaj rek. waaw juste man man man man li may li may li may jeexale moom mooy jeunes yi nga xamante ni bëgg di entreprendre nañu nañu fal di bàyyi xel lu bëri bëri parce que mm-hmm. loolu dama koy bàyyi xel ci benn. Euh, euh, euh, ku fi ñëwoon benn genre professeur bu ñoon jàngal ci wàllu formation waa entrepreneur jógoon Europe mhm. mu ne problème mu africain problème sénégalais mooy da nga mhm. nga alors que mooy jéemal xool d'abord ba sa ba sa mbir euh, stable baax a baax a baax mhm. ngir nga commencé mën a wane ne am nga xaalis leneen li moom mooy bul wane ne yow chef nga il faut il faut être ki nga xamante moom mooy moom mooy dirigeant parce que euh, entreprise tant yaay wane nga lépp yaa a bopp il faut être un euh, euh, dirigeant que que nga nekk li nga xamante ne moom mooy chef d'entreprise mhm. donc loolu moo nekk benn concept boo xam ne maa ngi koy jox jeunes yi mhm. te aussi nañu bañ a focaliser wu rek ne ñoom euh, dañuy dañu yóbbu nañ seen projet kenn financé wu leen donc mun nga autofinancer sa bopp mhm. xaalis bi ngay jël di ko jëndee ay ay ay ay ay iPhone <laughs> iPhone 13 iPhone 14 di wane ne iPhone nga yor yoral benn portable njega njaay wala wala wala boog benn benn 3310 bu bu Samsung jël xaalis boo nga war a kii financé ko sa bopp ak sama mbokk ñoom Sylvie yi yenn cheveux naturels yooyu Modou Fall merci bàyyi euh, soxna <laughs> Rokhaya Sy mu tàggatoo. pour tàggatoo rek damay wax ndaw ñi bu ñu ragal a entreprendre. nit ki lépp loo xamante ne ni bëgg nga ko góorgóorlu ci yàlla dina la ci jaajëfal. Mhm. te auto auto financement sax laay wax. Mhm. dara dàqu ko ci wàllum commencé. Mhm. di jaajëfal nag ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi ñu doon déglu. di remercier aussi fa nga xam ne foofu laa bàyyeekoo muy club de leadership. et de l'entrepreneuriat du Sénégal ñuy def liggéey bu am solo ci ndaw ñi di ko def aussi ci étudiants yi élèves yi di ko def ci Sénégal mhm. ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di wax nag que ni ñun ay ndaw lañu xaaruñu kenn dañuy ku kuñ ci fekk si fekk si ñu ci Mm-hmm. waaw loolu la ñu doon tàggatoowee. Mm-hmm. di remercier ñëpp di la jaajëfal Sylvie ci merci beaucoup baax maa ngi lay gërëm baax euh, soxna Rokhaya si bokk ci club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal euh, nekk euh, jigéen di entreprendre ci mbirum agroalimentaire ak ci wàllum habillement di gërëm bu baax Lama Ba vice-présidente réseau national des femmes pour le développement di gërëm itam Rokhaya Cissé moom it jigéen la di entreprendre di yëngu ci wàllum couture coiffure euh, yore école de formation di ci former ay euh, jigéen yu bëri euh, di gërëm également suñuy partenaire mhm. Doña Lola Garcia Martinez vice-présidente du Cabildo de Fuente Ventura chargée de la planification des finances de la promotion économique de l'emploi et de la durabilité environnementale di gërëm Momar Dieng Diop mi mhm. dugg traduiral ñu waaw traduiral ñu propos Doña Lola en espagnol moom depuis Espagne mi ngi mag nag may fàttali rek ñoom li leen tax a jukk di promouvoir li nga xam ne moo di entrepreneuriat des entreprises leadership waaye itam autonomisation des femmes euh, ñu teg ko ci ay série d'actions yi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy def di sensibiliser di motiver ak di former renforcer participation jigéen ñi euh, ci initiative économique ak entrepreneurial Mor Fall yow it maa ngi lay gërëm di gërëm Léon mi féetewoon ci technique bi ak mboolem mbokk déglukat euh, bi ñu doon bàyyi xel mbokk yi ñu ngi leen di dig daje mercredi bii di ñëw ak beneen invité.